lu rekk moom am na ngantal jàpp te néew ba noon ma julee bu ma faatoo kooku nag su booba néew baa ko tànn kon may nañ ko mu tiim jule néew ba njéem dafa am ngantal ndox wa fara idu tayamumi farataay tiim niyatu yéene moo ca jiitu wa sahiidu taahiru ak pàkk-pàkk bu laab ca suuf sa dog caa teg yoxo ya wa masal wajhi ak masaa xarkanam ba ndijoor ba na dem tegu ca jéba ca wetag ndijoor nga xëcc mu wàcc romb bakkan bi wàcc ba ronu tuñ yi càmmoñ ba ñëw def noonu ca wet ak càmmoñ moom loxob càmmoñ ndijoor ba ñëwaat jaar ca wet ga mu jaaroon mu wet ak ndijoor ga mu am ñetti masaa ca xarkanam ba noona la tiime boo tàmbalee tiim kon jàppal ne masa xarkanam ba foofa yem wa masul yaday ni jàppal ne jëmmi masa ga ngay masa yoxoye ca tiim farata la masa ba nag day dem ba ilal ko ay ni fa ngay takk sa montar cati weeye ba fa ngay takk sa montar loola farata la la ko nag jëm ba ca conce ya sunna la ca tiim bu ñuy wax sunna yi dinañ la ko joxoñ wa darbatu lardi al ula jëkk teg say yoxo ca suuf farata la wal fawru ak gaaw baña a doxale seneen soxla ca digante ba boo xasee tàmbali tiim jëfe ko noonu farata la wa duxoolul waxti ak ba waxtoo julli wa tabbi nga doog a tiim julli jëfe ko noonu faratala la waa tisaaluhoo bi salaati ak jokkale tiim ak julli ga farata tiim ak julli ga boo tiimee ba noppi daldi daal di liqaam tabbi ca julli ga jëfe ko noonu farata la wasahiidu pàkk nag muy fa ngay teg say yoxo tiim mi fa ngay teg say yoxo tiim huwa jëmu jooja turaabu mën naa doon suuf wa tóobu mën naa doon ban wal ajaru mën naa doon ay doj yu weex mbaa yu ñuul mbaa yu xonq wasalju mën naa doon ab lay mbaa galaas wala xadd xaadu man naa doon ndox muy daw dawaan di yëngutu wanaxwu saalika ak lu nirook loolu wala ya joosu daganul ees di tiim bil gis ci lépp loo xam ne sima lañu ko defare almat booxi bay bañu togg mbaa ay karo ciment bu ñu togg mbaa ay karo yooyu kenn du ca tiim wal asiiri basang kenn du ci tiim wal xasabi bant mbaa ay bant mbaa bant yu ñu gajj mu di ab gajj kenn du ca tiim wal asiisi ak boob muy ñax mu sax mbaa ay boob mbaa ab gitax yooya kenn du ca tiim wa nax wi mbaa yu niroog yooyu kenn du ca tiim waruxi sa yola na muy mayees na lil mariidi ci koo xam ne dafa tawat may nañ ko fii aaxitil ajari mu tiim ci lakkab doj nga luy lakkab doj mu ne mooy ab miir dañ ko entré hôpital wér yaram mayu ko muy déplacé di wuti li mu tiim te amut wér ak miir ba den moom mën na caaraay ay loxoom tiim ca nuñ ko mën miire nag baax na sunu borom dina ko jéggal la ca des watoo bi mbaa miira ban bu ko wër te ñu raax sima may nañ ko mu tiim ca in lam yajit ndax amul mbaa bu dee amul mu naawi lan ko ko jottali aw xeer wu mu mën a tiime mbaa suuf su mu mën a tiime te tawat sa jàpp na ko ba mënuta jàpp ca ndox ma kooku jéggal nañ ko loolu ndax amut leneen xayruhu lu dul loolee moo mën a egg ci ay yoxoom ba mën caa tiim kon nag may nañ ko mu tiim ca yooyee egg ci yoxoom ba mën caa tiim te ay yoxoom mën a egg ca yooye mën caa laal ba mën caa laal tiim ca wa sunnatuhoo ay sunnaam moom tiim dina ñu la ko jàngal ci numéro huit bii di ñëw yaa ngi jàng téere bu ñuy wooyee Laxdari yaa ngi ci page dix ci téere bi ma yor wasalaamu aleykum